Alioune Badara euh, Konaté maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Alioune Badara Konaté nga nekk secrétaire général bu syndicat Union démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk récemment ngeen organisé ab assemblée générale doon wax ni am ngeen ay jafe-jafe yu bari ci biir entreprise bi di Dakar Dem Dikk est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun largement ci jafe-jafe yooyu la. waaw jafe-jafe yooyu moom kaa am na. assemblée générale nag fu mu jógee mooy duñ naan le collège des délégués personnels parce que entreprise bi am na collège des délégués am na ay syndicats ba toogee waxtaan ñu ne les partenaires sociaux il est temps que ni ñu jóg waxtaan ak travailleurs yi sur un certain nombre de faits lu ko waraloon mooy jafe-jafe yi si entreprise bi bari na lool bi ci njëkk mooy dañu ñàkk car te kuy wax société de transport wax ay car ñun amuñu ay amuñu pièce de rechange ba mu ñëwee lu mu njëkk xamal moom nag amul ay car am na ñàkk na xaalis day dem waxtaan ak état bi mu xool naka la ñuy amee ay car yu bees mais dans un premier temps aussi entre temps mu xool naka lañ koy joxe xaalis pour mu dem jënd ay pièces de rechange ba mu demee jënd ay pièces de rechange aussi ñëw na def ko si car yi mais malheureusement foofu aussi désespoir lañ ko am parce que def na ko si car yi car kon situation bu ñu doon vivre depuis très moom la ñu continuer de vivre jafe-jafe yi nag mu la koy waxee noonu am na gaa mais bi ci gën a am solo mooy na respecter suñu plan de carrière travailleurs yi respecté plan travailleur mooy lan tey jii boo jëlee Dakar dem dik nga ñëw jël fa ñëw mënoo dañ la noo ko ñëw rek indi fa benn caissier par exemple rek laay joxe noonu rek directement si entreprise parce que jàpp nañu ni caissier bi liggéey bu muy def liggéey receveur la woon bu ñu prolongé rek mais moom loolu poste de promotion la pour pour pour pour pour receveur bi tey jii bu ko jëlee jox ko ñeneen bu ko jëlee jox ko ñeneen mu jëlee benn fële ci àll bi ñoo jox benn liggéey boo xamante ni kees receveur bi mën na ko def mais receveur ëllëg bu waree wàcc wala bu waree am promotion fan lay amee promotion te loolu si poste de promotion yi la bokk. Mm-hmm. te loolu dañ ko définiroon de façon telle claire du kees du receveur bi rek receveur bi conducteur waxee noonu. am na si yenn poste yoo xamante bu ko boo ñëwee dans un premier temps boo wàccee nekk bu bees la ñu yóbbu réseau urbain ngay daw Dakar Dakar Malika Dakar Kër Massar ainsi de léegi nag buñ ne da nga war a am promotion ñu xool benn entité bu mel ni Sénégal dem dikk yéen xam ngeen ko Sénégal dem dikk. waaw léegi nag mi ngi tudd direction du transport international et interurbain foofu chauffeur yi fa war a nekk dañ leen di solutionné dañu war a nekk ay chauffeur yoo xamante ni si biir réseau bi lañ leen jëlee ñu utu leen promotion jox leen ko. donc munoo jógee sa àll ba rek nga jékki-jékki rek ñëw rek nekk chauffeur Dakar dem dikk rek ñu Sénégal dem dikk da jaar réseau ba pare. ñun directeur général néew ñu ko bu mu jël am na pouvoir jël am na pouvoir de recruter mais na aw si yoon bi tey jii boo ko defee ñeneen ñi da ngay da ngay fàtt ñenn ñi fu ñu waroon a avancer ñoom bu ñu fa avancer te yow mënoo ñëw si kër gi fii léegi léegi rek nekk chauffeur ñu yóbbu la Sénégal dem dikk nga bàyyi fi ñoo xamante ne depuis vingt ans wala depuis quinze ans wala depuis dix ans ngi toog te ñu war a avancer si poste yooyu beneen bi moom mooy dafa am ay jafe-jafe yu bëri yoo xamante ne si biir entreprise bi ñun suñu coopérative d'habitat dañuy cotiser ñun amuñu doole dem jënd kër dix sept o huit millions dañuy cotiser pour am jënd ay kër ndànk-ndànk cotiser pendant dix ans gis nañu coopérative d'habitat yooyu société bi dafa leen leen xaalis te loolu dañ koy dañ suñu salaire dañ ko war a a def boo ko daggee mu versé ko fa mais du def loolu li ma noonu noonu la amee si IPM bi IPM bi tey jii dafa am ay ay de millions yi nga xam ne Dem Dikk dafa ko amel te loolu dafa a dagg reversé mais loolu amul ainsi de suite yeneen yi prestation familiale yi bu ñu demee le dix huit septembre mooy nekk six prestations familiales yu ñu fayu te yooyu c' est un droit des daggee dafa war a dem verser la caisse mais yooyu yëpp amul texte beneen bi moom mooy que ni am na si yoo xam ne mbir yoo xam ne am na au Sénégal dañuy soor a boole jàpp nañu sax moom du moom directement mais programme cent mille logements yi ñu war a am ñun dañu si war a bokk yi nga xam ne état moo ko initié loolu état bi la ñuy interpellé n' est ce pas woon loolu aussi dañuy demander à ce que. salaire yi ah. ñu yokk jotagoo leen seen bos. ñun bokkuñu sax maanaam. boolewuñu leen si waaw boolewuñu si dañuy demander nag à ñu boole ñu si. xam nga yooyu nag moom xam naa ne sa mën na a relever du directeur mais au moins avec les centrales syndicales on va se battre pour que vraiment le secteur privé bokk aux augmentations salaires waaw léegi revendication yooyu les DGO entreprise bu ñu ko déggee di Oumar euh, Boun Khatab Sylla lu mu ci wax ci revendication yi. en tout cas daal li ma mën a ma leen mën a wax mooy ñun ba affaire yi jollee ba ñu demee toog nañu waxtaan ak moom ba ñu waxtaanee ak moom nag man mii la ñu sant man en tant que coordonnateur cadre wax ko bëgg gis ñun les partenaires sociaux bu mu ne partenaires sociaux nag moom mooy les délégués et les secrétaires généraux ba ma ko demee waxtaan ak moom ne ko dañ la bëgg a gis. par téléphone boobu moom nekkuloon naa Dakar il était encore à Louga mënuma comme nag damay nekkuma à Dakar léegi demal nga waxtaan ak le conseil spécial moom lépp loo ko wax rek man dinaa si jot ba ma demee waxtaan ak le conseil spécial ba ma fa demee ànd naa ak cinq délégués ñu doon toog waxtaan de fond en comble wax nañu problème yëpp nëbbuñu dara waxtaan ak le conseil spécial ba ma ñu ne amul benn problème directeur général dina ko yëg am na sax yoo xamante ne jël na si ay mesures mais depuis boobu ak léegi amul benn réaction man de bokk gisaguma ko mais moom lépp lu ñuy def moom lu ñu sëyee fii si si bi le directeur général il est au courant lépp waaw amaguñ naka tour d'information par rapport à ça wax dëgg yàlla. voilà ñu nemmeeku beneen jafe-jafe ci biir Dakar Dem Dikk mooy euh, xiiro ak ŋaayoo ak ñàkk déggoo bi nga xam ne euh, ña am na ci diggante euh, syndicat yi ak syndicalistes yi lan moo koy expliquer. waaw man ne xiiroo ak ŋaayoo amu fi. Hmm. xam nga lan moo fi am. waaw dañoo jëloon engagement. sur la base d'un certain nombre de points ñu ne lii comme njëriñu liggéeykat yi la nañu àndandoo xeexandoo ko te yaakaar naa ne comme yéen a koy wax ne lu kenn mën ñaar ko ko dàq ñu ànd teg point yëpp sur la table ñu ne nañ dem xeex lii auprès de l'État ak auprès de la ñu dem nag ba ci biir dañ koy mettre en exécution am ñenn ñu ne ñoom day gis seen bopp suñu ñuy doxalee lu tax ñoom ñoo joxe seen raison mais daal jàpp naa ni comme lu ñu respecté ba affaire posé wu sur la table Sénégal mu nekk da nga jël sa responsabilité ñu ne man d'accord naa engagé wu si lii kenn forcé wu la kenn xëcciw la kenn taxul la lem boo demee nag ba jëmm jamono nga jàpp ne ni gis nga yow ne nii lu ñu doxal neexu la wala àndoo ci àndatoo ci nga rëcc réew mais nag kenn wul de kenn wul wax dëgg yàlla man de ba ba mbir yi amee c'est vrai que ne am na ñaar syndicats yoo xam dañoo débarqué wu sur les six syndicats ñaar dañoo démarqué wu ne ñoom mënatuñu continuer xeex bi nii ñun nañ leen ko te votre droit le plus absolu mais amul xuloo amul ngaayoo amul xeex waaw ñoom ñoom ñoom ñaar ñooñu moom moom bokkatuñ si si si cadre militaire bi. voilà yow naka nga gisee Oumar euh, um-, Ban Khattab Sylla ni muy gérer euh, Dakar Dem Dikk surtout boo ko doon comparé ak maître Moussa Diop. non xam nga mënu ma ko mënu ma parce que amuma ñaari ñaari ñaari élément de différenciation mais li may mën a wax mooy que ni Umar bun Xatab Sila ba mu ñëwee fii à Dakar dem dikk moom ba mu recevoir les syndicats man mi def naa la njëkk recevoir si secrétaire général ba mu ñëwee wax naa sama syndicat tel jour damay dem si Omar bun Xatab Sila daf may recevoir jox nañ ma seen xalaat man aussi jox naa ko sama xalaat wax naa ko li ma xam si société bi si gënoon ëppal solo mooy bu fekkente ne moom jot naa jot naa jël benn mbir ba ba ba redressé ko

teg fi xaalis teg fi matériel yooyu ñun nangu nañu ànd ak moom dem bataayu auprès de l'État pour que ñu ñu am loolu te moom réussir na loolu ba benn benn benn pàcc bokk xaw ma ndax am na xaalis wala amul xaalis mais xam naa ne état bi jox na ko xaalis pour mu dem jënd ay pièces de rechange. Hmm. état bi signé na ak moom benn partenariat ak benn contrat Iveco pour que ñu am kaar yu bees incha allah dafa moom si li mu ñu wax balaa at bi di jeex dinañu recevoir au moins six cent cinquante mille incha allah. nekkul nag ay bus asiatique comme ni ñu ko doon amee les ay bus européen la loolu moom jàpp naa ne am na mais nag tey jii wax dëgg yàlla dañu am ay problèmes yu tar. Mhm. yu ne këtt na jond tey jii bu ne société de transport comme Dakar bu dee nga xam te mënoo génne cinquante bus par c'est c'est mhm. moo waral taxawaay bu yàgg bi usager yi. moo waral effectivement comme pratiquement une heure de temps doo gis bisu Dakar dem. non une heure de temps sax am na ñoo xamante ne xaar tuñ Dakar dem bu ñu génnee gis kaar bi rek ñu tombé ci ñu jël ko mais bu ñu génnee moom du ñu xaar Dakar dem rek parce que mën nga toog deux heures temps doo gis kaar loolu lu ko waral nag mooy amatul pratiquement pas de kaar boo xoolee Dakar nu mu yaatoo nu mu nu mu développé léegi boo demee ba dig nga xamante ni une cinquante de minutes mënoon ko mettre dans le réseau mais c'est ah. kon da dëggal difficulté financière yi nga xam ne Dakar. waaw dëggal bu baax a baax a baax wax naa la sànq Mm. suñu IPM fayuñu prestation familiale depuis cinq trimestres fayuñu loolu rek doy na sëkk pour wax ne situation situation euh, nu def tension yi jéggi na dayoo dafa jéggi dayoo. Euh, gannaaw revendication yi est-ce que am ngeen plan d'action fas yéene ngeen grève wala exactement. daal plan d'action bu ñu am. Mm-hmm. mooy que ni mënuma la ko wax nii ci téléphone bi. parce que plan d'action boo ko déggee mooy stratégie la bu ñu mettre en place. Mm-hmm. léegi nag stratégie comme ni ne dévalué ko. du nekk loo xamante ni secret la mais en tout cas un plan d'action c'est comme ça que ça se stratégie elle n'a de sens que lorsqu'elle n'est pas dévoilée mënuma wax leen suba bu amul lii dinañ def lii ainsi de suite mais daal jàpp ni posé nañ benn acte ñu ngi xaar les retours d'information loolu nag amaguñ ko pour le moment voilà Alioune Badara euh, voilà Konaté Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. waaw jërëjëf maa ngi lay jërëjëf jaajëfal. may fàttali yow yaay secrétaire général bu syndicat. Union démocratique des travailleurs de Dakar Dem Union démocratique des travailleurs Dakar Dem Dikk. voilà jërëjëf.